arbitre nee na ko bëreel arbitre kan la wax ne bëreel sax pourtant Abou Assef a ngi bëre Gandia ngi bëre koo ci jox avertissement lambam jeex na Gandia Fama Abou Assef Gandia Fama Abou Assef ndeysaan jagante nanu jagante na nu mu ngi koy takkaat amaat na lu kawe njortam ndeysaan dalay rey na la rey na la rey na la rey na la et vraiment c'est terminé mi-temps mi-temps mi-temps leen quelle belle diggante Gandia Fama ak Abou Assef quelle belle finale Abou Assef Gandia li amoon sànq bu amaatee soit avertissement dana am kenn ki ñàkk wala kooku daanu ndeysaan Abou Assef Gandia Fama ndeysaan Gandia Fama mu ngay liggéeyati loo bëgg dalay rey Gandia Fama Abou Assef lim lay lim lay foofu mu la jëmee baaxul parce que loolu maninam la dalay yóbbu ci suuf diri la wër na la ndombo daf lay daan gànja faama abu asef daf lay daan sori na gànja faama abu asef daf lay nax loolu maninam la bul ko nangu bul ko nangu loolu maninam la wër na la ndombo c'est terminé li penalty la ci làmb mbër mu ko am ñàkk ko booye bo beril bay bayil ba xaw ndeysaan sama papa ja père booy jine moo doon wax loolu yal na ko yàlla yërëm moo doon wax ne buñ la jekkoo bayil baxaw Gandia Fama Abou Assef eh. Gandia Fama recours waaw day bind recours day bind recours kay day bind recours day bind recours eh day bind recours day bind recours waaw ils ne sont pas d'accord ils ne sont pas d'accord day bind recours de loolu la wax Gandia Fama en tout cas c'est une tentative risquée loolu kele la boo xam ne balaa nga koo def nay wër nay wër plek nga doog koo def image